Amadou Moustapha Gueye maa ngi lay nuyu. Euh, Ndeye Comba maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la ci invitation bi. voilà Amadou Moustapha Gueye nga nekk président coalition nationale des consommateurs euh, du Sénégal coalition bi lan moo tax ngeen euh, teg ko. waaw maa ngi lay gërëm bu baax. coalition nationale des consommateurs du Sénégal li tax ñu teg ko dañoo bëgg renforcer. Euh, le dispositif de protection des consommateurs du Sénégal parce que ñun dañoo remarqué ni que malgré tout ce qui a été fait vraiment les les les gens ont fait des efforts ont travaillé et ont même pu avoir des résultats sur, les revendications concernant euh, la protection des consommateurs du Sénégal mais ñun dañu conseiller ni que dañu waroon a mettre en place un autre ci dispositif bi beneen clé bu bees boo xam ni bu ñëwee dana dana mën a jël en charge Euh, euh, euh, coono yi nga xam ne sénégalais yi nga xam ne ay consommateurs lañu moom la ñuy rencontrer difficulté yi nag ak coono yi ñëpp xam nañu ko man xam naa ko yoo xam nga ko keneen xam na ko parce que ñun ñëpp ñoo koy dundal ñëpp gis nañ ni que tey jii Sénégal électricité dafa cher benn famille tey jii noyeetul dundatul ndax électricité bu cher ndox mi war nañ ci mën a wax téléphone war nañ ci mën a wax. loyer war nañ ci mën a wax euh, faju war nañ ci mën a wax jàngu xale yi ci ci école yi war nañ ci mën a wax euh, euh, emploi des jeunes war nañ ci mën a wax parce que tey jii yooyu mooy mooy problème sénégal yi ñun ñëpp tey jii ku nekk certainement am nga solution wala nga am idée ci loo xam ne yow boo buñ ko ñëpp tegoon ñu discuter ji war nañ ci mën a trouver des solutions parce que sénégalais yi tey dañu sonn nañu bu ba bu sonn mën a yem te gouvernement bu bees bi fi ñëw Euh, yaakaar naa ni yaakaar moo tax Sénégal yi teg leen ñoom ay sénégalais lañu comme ñun moo tax yaakaar nañ ni que pooleen bi ñoom war nañ ci mën a taxaw parce que ñoom euh, li ñuy wax sénégalais yi ba ñu teg leen fi mooy que sénégalais yi dañu sonn loyer dafa cher électricité dafa cher ndox dafa cher jàng dafa cher faju dafa cher. Hmm. donc ñoom tey seen euh, seen li ñu seen wareef mooy lépp li nga xam ni. waxoon nañ ko Sénégalais yi ba ñu euh, fal leen teg leen ci bopp réew mi ñoom war nañ ci mën a taxaw te yaakaar nañ ni ñoom daan ci taxaw. Mm-hmm. waaw waaw ñun daal loolu lañu ñu buggoon Sénégalais yi xam ko Sénégal nag euh, ñoom dañu war a wax ak nit ñi wax ju leer ndax ñoom dañ ñu woo ci réunion. Mm-hmm. waaw woo association de consommateurs yi ni leen dañoo am système bu bees boo xam ne le quinze octobre lañ koy teg en place. Mm-hmm. système bi posé nañ leen ay questions. ni leen est-ce que système boobu du tax njëgu courant bi yokku njëgu woyofal bi yokku mm-hmm. am na question yoo xam ne ñoom répondre nañ ci am na question yoo xam ne répondre wuñu mm-hmm. wante ñoom question bi xam ne ñun dañ leen ko posé mooy waaw il faut que ñu wax sénégalais yi ñi nga xam ne dañoo jënd seen crédit ba noppi ñu ngi leen le quinze dañuy teg système bu bees est-ce que sénégalais yooyu dañuy perte seen crédit bi nga xam ne jënd nañ ko wala duñ ko perte loolu ñun du ñu bëggoon lekk rep def ñu defal ñu ci réponse officielle bu leer Sénégal yëpp dégg ko parce que bu dul loolu il est hors de question que euh, consomateur sénégal yi di perte seen crédit yi nga xam ni jënd nañ ko euh, fi bu bu la quinze passé il faut mu leer euh, li wóor mooy ñun daañu saisir le gouvernement du Sénégal pour wax leen ni que ñun li ñu bëggoon mooy que njëgu courant bi état bi taxaw ci njëgu téléphone bi état bi taxaw ci njëgu ndox mi téléphone bi euh, euh, état bi taxaw ci ndax man dama liir bi ci guddi. Mhm. benn interview boo xam ni directeur général général de la CNO moom moo ko def. Mhm. quelque part mu ni des nouvelles autorités dañu leen a dañu bëggoon a yokk njëgu ndox mi. wante ñu ni daañu trouver des formules mais loolu aussi leerul il faut ñu wax ñu lu leer dañuy parce que ndox mi buñ ko yekkoo buñ ko yokkee. waaw fekk na déjà courant bi ñun supporté tuñ ko téléphone bi supporté tuñ ko loyer bi supporté tuñ ko su boobaa Sénégal yi fan lañ jëm tey Sénégal yi dañu dañu dañu sonn ñëpp a sonn ku ko wax ak ku ko waxul da nga sonn waaw te loolu vraiment euh, gouvernement de Sénégal bi nga xam ni gouvernement bu bees la bi nga xam ne teg nañ ko en place ñoom war nañu woo toutes les parties prenantes ñu réfléchir à comment sortir les Sénégalais de ces difficultés ñun loolu moo tax ñu créer Hmm. ñu en place la coalition nationale des consommateurs du Sénégal. du pourtant yaa ngi wax ni ndox mi cher na déjà euh, courant cher na dund bi cher na mais ñu ngi wax ni. Euh, officiellement état bi dafa war a yëkkati subvention yi nga xam ne daf ko doon teg si euh, courant bi si carburant bi ak yeneen aussi loolu naka nga ko gisee déjà sénégalais li ñuy dund métti na te bu ñu sukkandikoo ci waxi euh, sorti gouvernement bu mujj bi muy premier ministre ak gouvernement mhm. dañuy def la levée des subventions naka nga gisee aussi mesure boobu waaw xam nga foofu aussi dañ ko war a leeral ñun dégg nañu premier ministre wax mais ñun dañu considérer ni que ñun aussi ay responsable lañu dañoo war a wax sénégalais yi lu leer subvention yi buñ ko yëkkatee courant bi dana gën a yokk te tey pris courant bi sénégalais yi sénégalais yi support support supporté tuñ ko euh, subvention yi waruñu ko mën a dañ ko war a yokk sax mais war ñu ko wàññi parce que am na tey ay réew yoo xam ne ñu ngi ci Afrique wala dans le monde yoo xam ne les financier comme ay FMI Banque mondiale dañ leen bëggoon imposer ces genre de de restrictions dañoo bañ parce que ñun on est des états souverains quand même on est des états responsables waruñu mën parce que ces gens là nous donnent de l'argent di ñu imposer lu nekk on a vu que en Égypte il y a quelques années le gouvernement qui avait mis en euh, un franc sur le prix du pain a occasionné des des émeutes qui ont fait tomber ce gouvernement mais Sénégal nit ñi dañuy sonn loolu nit ñi dañ dañuy sonn gouvernement bi daf ko war a xam gouvernement bi nag man yaakaar naa ni que li tax ñu fal leen ñoom daan ci taxaw. Mm-hmm. parce que Sénégalais yi yaakaar moo tax ñoom ñu fal ñu fal ñu bees ñi jox leen état bi te ñoom yaakaar naa ni comme man ni ma ko yaakaaree ñoom ay patriotes lañu comme ni ñu koy waxee ñoom ay responsables comme ni ñu koy waxee. yaakaar na ni que daañu taxaw ci bëgg-bëgg Sénégalais yi nga xam ne loolu moo tax ñoom ñu follante yi teg leen ci bopp réew mi loolu nag ñun la leen di woow état bi il y a quelque temps def na quelques efforts sur certains prix sur certaines denrées c'est bien mais war na mën a am war na mën a dem au-delà loolu nag pour mu mën ko def y a des postes de au niveau de l'État qui sont inutiles amuñu benn njëriñ yooyu nañ ko jël ces économies là ñu jéem ko reverser dans la vie ou bien def ko comme subvention pour que Sénégal yi mën a mën a noyyi tuuti. Mm-hmm. mais tey jii Sénégal yi dañu dañu sonn ah dama lay wax lu leer ah. Mm-hmm. je parle avec le yi dañu sonn. actuellement waaw ku fi nekk tey chef de famille wala père de famille wala mère de famille war nga xam ni que Sénégal yi tey situation yi ñu nekkee situation yu métti la te nag yaakaaruñ ci lu dul gannaaw yàlla yaakaaruñ ci ñi nga xam ni ñoom lañu jël. jox leen état du Sénégal pour ñu gouverner. Mhm. Euh, ñu gis ne temps yo aussi coupure euh, électricité yi commencé waat na délestage aussi pareil euh, ban appel nga si mën a lancer les nouvelles autorités. waaw ñu gën a def effort rek. ñu gën a def effort. Euh, def ay économie d'énergie comme ni ko gouvernement bi waxee mais économie d'énergie aussi bu amee euh, buñ ko bu ñu wàññee ba am ay économie d'énergie man jë gëw ma état. sa vocation mooy def des bénéfices état du def bénéfice état dafay dafay récupérer de l'argent sur des économies jël ko mën ko reverser dans des zones sensibles ou dans des zones yoo xam ne nit ñi dañu am ay problème coupures yi nag delsi na y a quelques coupures loolu aussi il faut ñu expliquer ko nit ñi mais pourquoi mu am coupures yooyu parce que tey ñi nga xam ni ñoo xam ni c'est des euh, c'est artisans nga xam ni courant la yuy liggéey muy tailleur yi mooy ñeneen ak ñeneen mais ñooñu aujourd'hui dañuy toog une journée ou en tout cas une demi-journée du ñu gis courant te ñoom bu ñu gisul courant aussi du ñu mën liggéey dañuy am ay problèmes du ñu am problème de yu ñu yu ñu dundalee seen famille donc foofu aussi Senelec ak ak ak SONES ak Sen'Eau ak ñeneen yëpp ñi nga xam ne dañuy def dañuy dañuy produire ay services war nañu mën a expliquer su fekkee ni am na problème yu mel noonu ñu expliquer nit ñi lan mooy problème bi. waaw suñ ko suñ ko waxoo rek ñu ñun duñ ko mën a xam parce que c'est vrai que euh, il y a avant il y a amoon euh, un, un léger mieux en tout cas un mieux sur les coupures mais il faut il faut remarquer et considérer que les coupures yi dellusi na te loolu aussi vraiment dafay dafay handicapé euh, euh, aujourd'hui l'économie même du Sénégal et la marche des, des Sénégalais. Mhm. coalition euh, des consommateurs est-ce que seen kuréel gi am na euh, peut-être plan d'action boo xam ni tëral na ko ngir taxaw si jafe-jafe consommateurs actuellement au Sénégal. plan d'action bi mooy euh, ñun. Euh, li ñuy wax rek mooy dañuy privilégier la concertation à la confrontation ñun li ñu bugg mooy waxtaan c'est-à-dire waxtaan lu mu mënul régler mën ko mu ni que doole doole war na ko mën régler donc ñun euh, euh, daañu suivre officiellement en tout cas lu gouvernement de Sénégal pour poser leen problème yi ñu leen wax nii yëpp pour ñu xool ñoom nan ak ñun nan lañ ci mën a trouver saafara pour loolu nag il faut que ñu am une concertation générale de toutes les parties prenantes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk autour de la consommation ñu mën ci taxaw ñu réfléchir ci ku nekk joxe ci sa xalaat ku nekk euh, joxe ci li nga yaakaar ni que boo ko waxee euh, dana mën a euh, saafara coono yi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund. merci beaucoup Amadou Moustapha Gueye ñu ngi lay remercier ci sa disponibilité. merci Ndeye fàttali ni Amadou Moustapha Guèye yow yaa jiite coalition nationale des consommateurs du Sénégal jërëjëf.